ngi nuyu ñëpp di fi gën a tedd asalaamaaleykum wa euh, def rek prononciation kàllaama laaj de poche parce wax dañuy wax neex na boo jógee ci daje boo euh, jaar te na ko waxee man damay saluer def gis ñëpp. ginnaaw bi ma nuyoo sama grand frère Pascal Dior di nuyu Abou Ba sama xarit nekk représentant suma mag ak Thierno Sall Sall damay wax ni su ma ko fekk dama koy sant ndax bàyyi moo ma jàngal alxuraan donc bu ñu dajee ci mbooloo dafay rafet nga jox ko yëpp xam ak it ñu ne sant la gërëm euh, waxtu gàtt lay doon parce que ci discours rek dañuy lire lu bari da nga woote tey ñëpp kenn. bu subaa boo wootee leneen lu am couleur kenn du ñëw dëgg yàlla moo ko tey nga nee cadre de concertation pour développer Thiès gis nga ni bokkul parti politique ñëpp fi nekk pour répondre à nos frères yi ko wax dama ni Habib ñu lay féliciter di ànd ak yow ci lii man de ba mu wooyee ma ñëw tant que couleur bi daal soo ko wutalee couleur bu orange ànd ak Idrissa waa APR ñii soo ko defee marron beige man du ma ñëw soo ko defee beneen couleur keneen du ñëw donc garder cadre bi ci lii su amee couleur bi moom di nga gis ñi nga woo mën na wooye bi dafa am lu ñu wax sànq politicien gis nga man damay wax ni est-ce que du ñeneen ñi sax ñoo ñoo am jotu wax ak di nax seen kër boo dem di politique même jeunes la même femmes yi même anciens yi ñooy traité depuis PS ba tey ñoo ànd ak Abdou Diouf ñoo ànd ak Ablaye Wade ñoo nekkoon kër Mbaye Diouf ñoo nekkoon kër keneen après gisoo suma sa kër la ñu ñëw léegi yow boo nee politique nitewu ko da ngay mere ko la deful dara ndax da ngay jël sa xaalis def ko ci ñooñu élection jot nga naan ñi rek maa wóor kenn wóor la yow yaa dof sa ndox jël sa xaalis dugal ko foofu dugal il faut que les gens bàyyi wax bi nga xam ne amul benn sens wallaay Aziz nit dafa ñëw sama bureau ñu toog di waxtaan soog na dëkk mën naa wax tur bi xam nga lu mu wax monsieur le maire yow da ngay jaay arrogance bu ñu waxee ngay dem dem kaw nii di dajje kantu nii mais maa ngi xaar deux mille dix neuf ma ne ko wax dëgg yàlla ma ne ko jógal jóg ma ne ko génnal sama kër man administré la ma ne ko sama yoon nekk ci génnal sama kër mu dem may dem ma ne ko taxawal mu taxaw ma ne ko jàngal fa mu ne ma ne ko mu ne ma noo sori wàcc ma ne ko boo demee na nga ubbi sama tur mbul da jàng li yàlla wax ci aaya ci ci nguur man waxuma ay ministre de ak ay directeur généraux dañ leen di man fal la yàlla di wax fal yàlla dafa ni man maay fal nguur man maa ko moom ci samay tuur la moom maa koy jox bu ma nekk su ma joxee nga nekkal fi askan bi ma bala ci nga nekk boo fi nekkalee sa bopp ma man su ma toogee ku gis ku toog ci kanamu sëriñ mu naa la mu naa laa teg mu naa laa teg boo fa jógee di julli ji xamuloo yàlla ni ma leen ko waxee laa koy waxee Tivaouane laa koy waxee Touba la koy waxee fu ñaan laay ñaan ñaan ci yëpp pour yalla suturaal bi mais fal du len ko ñaan parce que yow leen bu serigne yoree fal baatu yalla dañ il faut que les gens remettent en cause leur propre croyance abi fi nga ma woo man démb rek woo ak show Thiès mu jógee këram yow ba sama kër nga wàllu ñoo dama dama ñëw

lu yomb rek nga ne yow yaa ko lu jóg nga ne ci yow la jeex humilité borom subhanahu wa taala moo suñu wootee cadre de concertation bu mel nii man li may ñaan mooy ni ko tàmbalee ni kóol mooy ñëw avec respect wax ni monsieur le yow lii nga war a def ci garage bi defoo ko moo tax mu joxe ay explication mais am na ci loo xam ne du compétence am na ci loo xam ne compétence su

déplacé waat ak port di ko indi ak yeneen ak lu ñu war a wax ne Thiès waaye am vision ñu jéem a waxtaan seet lu ñuy def ba at yooyu bi ñëw ñu jéem ko exploité man bokk naa ci ñu waxee waxu dañuy indi fii car Dakar dem dikk man la léegi fii Dakar dem dikk lu nga amee wala ñu amul wala léegi Sénégal dama di di sant ñu fekk ñëpp xanaa su nit wax li ngay wax sa doxalin man mën naa yëgal sama loxo ci kaw

boo demee Grand je am fa nekk suis fa nekk boo demee suis école yoo xam fa tabax musuma bokk ak parti am na jeunes yu liggéey fa c'est du concret lu ñu gis la boo demee je def na fi def dem Alassane il veut faire ce qu'il avait à faire et il a tout un chemin devant lui bu woon ñu war a ñaan mu promotion mais gis nga boo ñaanee Edouard grand yow nga suis boo ñu faloon da ngay wét keneen ñaan nga suis keneen ñëw wét dañuy ñëpp ñu man loolu laa dugg il faut pas que les gens jàpp ni suba su ma demee kër Habib war naa fa ma mën a am di wax ak Habib loo xamante bu subaa boo dajee suñu génnoon fii dinaa ko dugal ci sama oto ne ko diw sàngam ak diw sàngam suba dinañ la fajal ñoo doon fajal ñoom danoon jéeg mbay bi ba Idrissa Seck ba tey mooy lu il faut pas que nous bàyyi nit aussi nous dugg ci erreur c'est les mêmes jeunes les mêmes femmes les mêmes anciens qui rôdent dans les maisons des politiciens et qui demee nga tout ci mbooloo ñu lay tagg ci ay lamb nga yaakaar ne yaa ci a élection jot ñu gis duñu sax yeewu bay voté si c'est l'intérêt de Thiès moi je suis je suis ouvert à toutes les discussions mais que ça soit dans le cadre du respect waxuma je institutionnel institutionnellement, parce que amul respecte respect entre doomu et doomu kii bokkuñu parti politique su ma yëkkatee deux heures dama dama jóg bokkuñu dëkk bokkuñu dara mais lu mën a am mooy cër dafa ma jox ci rak ma jox ko ci rak te loolu mooy jox damay wax ni Macky Sall garant président préfet bu Thiès man sama bos a ñàkk fayda la fii ak fan Abdoulaye Wade damay wax la mu ko xeexam métti ba léegi muy xeex dafa xeex plus de 36 ans falu 12 ans affaire dafa gàtt ci moom mais ku ku ku jaar bu Dakar wër biir Sénégal man jàngale naa képp ak feneen xam ni il a réalisé loo xam ni gëmatuma président def ko parce que il n'aura pas le temps et pourtant et pourtant et pourtant sama leader Idrissa li mu teg yëpp na Wade ko teg mais xam nga lu mu benn jour si je paie ce qu'il a fait de bien pour moi li ma def lu lu maal c'est minime par rapport à ce qu'il a fait de bien pour moi man ak Idrissa biir sama donc nit ñi. nañu ubbi seen xel ubbi di xalaat loo xam ne jëmale dëkk bi kanam te ñu bàyyi ba ñu bañ a bàyyi ba élection jot ñuy xeex ak Macky Sall pour man amul sens xamul am sens mooy ñu gunge ko ba mandat jeex gis nga ko fi toogee naan monsieur le maire nañ ko bàyyi ba cinq ans yi jot c'est cinq ans de temps pour jeex nañ ànd ak moom ba mandat bi jot lu ñu war defal ñu jàppale ko ci bu fekkee nag échoué na ñu ne ko sëñ bi mënatoo wàccal keneen yéen mais non non dañuy téye fii fas bi fas bi suñ ko fi téye cinq ans bu ñu bëggee dem fas bi nagam dootul dem Habib chemin bi nga ak Sow Sow tu es très jeune damay wax ni Thiès bu développé wul ci at yi dootul développé wax naa ko Babacar Fall ci nuyu dama ne kàlla di remercier ñoom Ousmane Diop ñi may occasion bokk ko ma ne ko grand jege naa Macky Sall pour ñun amul ñu benn chance amul ma benn chance lii diri sa defoon yow ma xam fa affaire rek ngay gën di ko indi ci dëkk bi. Idrissa dugalul benn turu nit fii Thiès amul. dafa fekk li ñu bokk mu ne réussite jundam ak Ablaye Diop def keneen def seen wàll dafay jàpp ñu wéy ñu ñoo fi nekk nañu jéem a seet comment faire ñu retourner autour de l' essentiel xam ne cette ville là du ville doomu Idrissa du ville doom Macky Sall suñuy ville doom la suñu avenir doom moo ci nekk mais suñu fi nekkee am ay considération parce que ñàkk fay la di manqué nit de respect à travers les zones ak yeneen du ñu dem fenn fii boo fi yaakaar yaa ko xam-xam yaa ngi nax sa bopp soo nee ingénieur prêt boo duggee ci mbaaru tëgg yi xam ne xamoo dara nag nag moo dee tëgg mën a defar kenn xamul boo duggee ci école yi xam ne xamoo dara donc kenn amul xam-xam jël lépp ëmb mais li am solo mooy suñu wootee cadre mel man Habib fii laay jël engagement ne tant que le cadre garde cette couleur foofu woo parce que man je fais partie des yi ragaluloon taxaw wax ne xaalis bi ma jox fii mu la preuve dans le département je suis le seul maire bu OFNAC ñëw bureau pour des raisons politiques pour des plaintes politiques te dama ne leen su ngeen génnee ngeen wax parce que ji nit ba ay naw leen dégg ko dafay laaj su ngeen génnee ngeen di bañ comme ça yéen tamit seen cadre yu mel ni bu ëllëgee bu ngeen di défendre les élus ngeen xam ñan ñoo jot défendre mais ça sert à de nga ni am ay wàllam bu sàcc la rafet yëpp dégg ko nga dem xam ne Edouard la muy def lu lu am solo la nga nag bi teg pour man Gorée bi moo tax damay lancer un appel li ñu def keneen ak mooy jàpp fii ñu daje daal man maa ngi sant di gërëm ñëpp pourquoi parce que quand on dit représentant de Maodo Malick un frère euh, à nous qui est qui est d'une extraordinaire lu waay mën a sikk Maodo Malick boo ko gisee li El Hadj Abdoulaye Sy euh, waxoon gis ko Thierno Alassane sañul bon parce que bu xam Pape xam ni noonu Babacar Pascal même chose donc dans le milieu si on a tous habitué les mêmes comportements et les mêmes éducations si l' essentiel mooy war a foog pour ñu toog war nga mën a gis lu tax ñu war a gën mu bi mu nekk rek mooy Thiès mais suy am couleur ngay ñàkk ñenn ñi te bu ñàkkee ñenn ñi rek ñu ngi si te fekk gën si war doo considéré di sant di gërëm di gërëm rek ñu ngi wax ne teewaay bi kontaan nañ ci dama waroon dem cérémonie di nuyu nag sama rak Habib Kane di ko gërëm bu baax di rafetlu xelam yu rafet excusez la redondance Habib xale la boo xam ni li tubaab bi wax rek la valeur de l'homme n'attend point de nombre de l'âge maanaam mbaaxu nit xaarul bi jaaw ci olof nit ki dafay juddu judduwaale mbaax te Habib noonu la mel man mii xam naa ci dara te dinaa wax li tax ma firnde lii Habib foo ko fekk soxla jàmbur lay ci réseau bi mu créé mi ngi def liggéey bu rafet qui santé population populations Thiès créer ay mutuelle qui financer un carnet de santé dans son quartier nous leen mais les yaatal ko bu quartier Thiès yépp daanaka mu ngi fay liggéey liggéey boobu mu xam ne également dañuy soxla connexion internet Nous mu dans beaucoup de quartiers mu installé fa ay wifi gratuit loolu peut-être lu ñu mën a gis la ci lu baax lu muy def mais am na lu muy def lu baax lu nit ñi xamul ñun ñi yore service administration xam nañ ci dara Habib saa yu xëyee nit ku am problème ak justice mu jóg ci dox bu dee caution bu ñu war a joxe da koy jaral mu dem lekk jàmbur dañ joxe caution

mu woo ci ñëpp képp kuy def politique ak képp ku nekk autorité Habib woo la ci xalaat bi pour que nit ñi am fu ñu daje di waxtaan ak di nas liy jëmale Thiès kanam loolu nag du jafe parce que nit ñi ni ñu wuutee noonu la seen couleur mbubb wuute te kenn ku nekk da bëgg mbubb mi nga sol

ñëw ci laje bu mel nii nga ne dëkk bi doxul dara baaxul te ñiy doxal dëkk bi toog bokk ci cadre bi nga bokk wala ñi bokk ci nguur gi toog am responsabilité defar dëkk bi yaa ngi indi noonoo ci cadre bi mën ngaa waxtaan wax li nga xalaat mais nañu moytu la stigmatisation politique loolu moo mën a tax lii ñu yëkkati jëm kanam lu jafe la nag parce que toog ci mbooloo mu mel nii

Je ñu bari invité nañu abi mu lu ba cadre bi am coloration politique man pour ce qui me concerne damay rassurer pour dissiper inquiétude sur le plan politique Abid, man la il est membre du mouvement Dolli mais je ko mu jox cadre bi coloration parce que man personnellement activité de développement motax tax ma ci politique. kon fu ma gis ñu woote ko du ma nangu ñu def ci loo xam ne da koy xajamal wala na koy yàq du ma sax nangu ab yi dugal corporation politique ci cadre bi te moom mi sama bureau lu fa jógee xam na conseil yi ma koy jox ku généré la ku baax la koo xam ni vraiment lu baax ci jàmm daf ko jaral lu ne kon encouragé ko teg ko ci yoon wi gën moo gën nga di ko jéem a xëcc ci loo xam ni gënul léegi monsieur le maire dafa wax lu am solo gis nga affaire u Fala ñun ñooy rey su bopp de mais yàlla pare na ñi war a falu ñëpp fii ba àdduna di tukki yàlla tànn na leen ba pare ku ci bokkul mënoon muus ak fexe ba bokk ci bu la ñëpp mais bu ñëpp xañee yàlla jox la da loolu ku ko xam rek doo sonal sa bopp da ngay moom alxuraan na benn mag boo xam ni daf ma wax lu am solo. mu ne ma boo gisee yàlla fonk góorgóorlu dafa am bis benn picc wàcc ci fi jigéen ñi di beese dugub xaw ma lu lu jooram nag man séeréer laa si wolof leeral mais fi jigéen ñi di di beese dugub xam nga day def jàll boo xam ni léeg-léeg picc yi dañ fay wàcc di for daanaka très bien dañuy faral di fa lal benn fii boo xam ni benn cordon lañ ko def mu def benn anneau nan la wax. capital capital très bien. benn picc ñëw fiir bi jàpp mu tàllal laax bi daal di boof ne yàlla yow laaj yàlla yónni malaaka Jibril ne ko noonu mu may xaare borom fiir bi ma ko fay fekk man lu ma ko fa fekk su bëggee ma fekk ko fa na yëngal sax ay laaxam Jibril wàcc wax ko ko mu daal taxaw yëngal laaxam bopp bi yëngatu ak ah, roccetal bi xaw a yolom

dinaa ko accompagner ci initiative bi comme ni ma ko daan accompagner ci initiative yëpp daal di jël vraiment di leen sant di gërëm wax jaa a gudd maa ci yëpp moo xam Maodo Malick Mbaye la sama xarit moo xam Thierno Alassane la sama ñaamu tukulóor moo xam. Euh, waaw loolu la de tukulóor yi jaamu <laughs> ñi yëpp wala ñi maa ngi leen di te di wax ni lii ñëpp ci war a jàpp parce que Thiès dafa nekk ci bunt boo xam ni bu ko Thiès waaye xamee exploité ko lu baax lay doon ci ñoom Thiès actuellement est devenu le carrefour du Sénégal amul benn yoon booy jël jóge Dakar te jaaroo région de Thiès amul di dem Dakar te indi aéroport war a indi yeneen investissement loolu Thiès waaye dañ ko war a xam boole seen doole. ay xiro beeg ñaayo bi di yëkkatandoo di tegandoo ngir kees jëm kanam maa ngi di gërëm di leen sant bu baax wa salaam voilà donc di la wax ni say ñëw bettuma ndax lii ngay def ki yottoo ngay doxee bu doon la tamit moo koy wax ndax man ku ma xam ne engagement samay di nuyu Babacar Pascal di wax di rappeler li ma lee ak moom yaakaar naa doon woon kees avant kees la dañu nekk maag moom ba ñu ñëwee kees kenn ba may xam ne ñëw na kees damaa perte damaa ne sama ànd faama yàlla ko yàlla xare àjjana te taxaw ci buntu bureau mu ne ma dama am kër ci sama wéyul ma ne ko waaw mu ma moom chef de bu bees bi ci avec secrétaire rek Pascal Gondé ma ne ko tudd Pascal Babacar Pascal Gondé mu ni tëll bunt bi yàpp man xoolu de i maa ngi doog a ñëw loolu la ma mën a wax moom ko waxee ni ma xoolee moom bëri na ma ko kenn moomu ma ne ko damaa bëgg ñu jaxase askan bi dugg nañ ci at mu bees boo xamante ni dara xewul te at mi bëgg naa kees nekk ci benn lii moo waral tey lii di dellu di nuyu Omar Gueye bu Dakar Dem Dikk di nuyu Mor Talla Fall fi nekkal Modou Malick Mbaye di nuyu Abouba ñi nga xam ni moo représenté ci Al di nuyu Aly Nguer représenté du ma ne monsieur le maire doolu ma wax sa pour bi Aly Nguer représenté moom laa wax ma yow di mënul tudd di remercier mbooloo bi fi di nuyu sama yaay di nuyu jigéen ñi maa ngi leen di nuyu di leen sàggal leen xamal ni jotaay jigéen ñi génn seen ñii ay président cellule lañu mais bu ñu génne woon li ñu àndal xajul fii président cellule laa woon ñoo toog fii maanaam ku ci nekk rek am nga loo jox ci seen mbooloo indaale ko mais bu ci dem mu indi loolu liste bi ma présenté bokk ak man réseau ba bu duggee fii maanaam douze groupes tudd nga tag ñu fii te loolu xam nañ dara maa ngi leen di sargal di leen nuyu baax di nuyu sama papa Moussa Seck di leen nuyu yéen ñëpp sama discours nag mu ngi sama kanam mais yaakaar naa ne dootuma ko wax li ma ci waroon wax it wax nañ mais dinaa am lu ma laal loo xamante ne mooy li ñu li ñu sóob bi mooy kees rek pour le développement am na ñu ko fi wax am na ñu ne monsieur le maire pas le faire à lui seul monsieur le maire dellu leeral leen am na loo xam ne man maa ko war a def man maire am na loo xam ne état ko war a def li état war a def ñun ñoo ko moom dañ ko war a jëli mais bu ñu xoolee suñu intérêt personnel wala ñu xool suñu intérêt parti ñu dem ci Pakistan et Macky Sall n'a été pas élu pour la, pour la paix. Macky Sall a été élu pour travailler dans le développement de ce pays. C'est ça, loolu la sincèrement mais waxul man affaire tey te ñi ko ñun que nous, toog fii quels que soient les partis différents yi ñu bokk ñun ñoo booy voté pour mu gagne malgré parti yi ñu bokk ñoo participé pour mu nekk le président de la République que ce soit avec PDS PNS, etc., cetera je pense que nous, tey bu ñu taxawee ne joxe na ko dul noonu du tey la ñu war a wax ak moom. am na ko wow monsieur le maire xooloo loolu mooy wax ki ko ne aw ma lu koy waxee yow may xaar 2019 tey ku mel ne Macky 2019 ko waroon a xaar mais waroo xaar ci projet yi mu nekk ci liggéey ngeen doon ànd ak moom bu boobaa ñun kees ñoo ñuy sànq dëkk yi ànd ak moom mu ngi liggéey ñëw ñun ànd na moom wala am na lu taxawee mu fàtte waaye li muy fàttee lu moom lu moom la nag nit nag bu ko dëkkee monsieur le maire bi di toog sa wet ñoo ko fal mu war liggéey pour ñun lañ ko jox bu nekkoon muy séddale bu ñëw ba am lu mel noir bu leen dumóoy bu da leen romb lu muy def damay jàpp nit bu yoree dara ngeen ànd jox ko ko te am ci wàll jëlal sa wàll jamante du fi mbay jamante ala kulli alim day am bis bu yàlla defee ñu tollaat ci jamante nga ñëw nekk bu baax lii ñoo la ko joxoon waaye ñun dañ koo soxla ak yow ànd moom ci wax suñu borom defee kon ni ñu wax koy def lépp xëy suñu borom mooy def na fadoo parce que ku xalaatul woon ñun ñëpp ñun ñëpp ci toog xam nañ ne li am en deux mille douze xalaat boobu mais suñu borom peut être bu yàgg kenn mënut dara te bu ñëwaatee bu war a demee noonu noonu lay def bu war a demaatee ci monsieur le maire noonu noonu lay demaatee kenn du ci mën dara da koy jéem sa doo ko fekk kon yaakaar naa ne bu ñu paree ne day liggéey développement dëkk bi développement bi rek fii day commencé man de dama ne moom en tant que maire de ville en tant que maire de Koungheul ñun ñu dëkk ak moom am ay possibilité am ay partenaire am na ñu mën a jàppale pour ñu mën koo jàppale war ñoo xaar ki bis ñu tànn laa mais moom it en tant que maire war naa sol casquette maire am xam ni population la ëmb ñeneen fekk Babacar mu toog ànd ak ces journalistes là ñëw tànn ko lu micro ne ko Babacar bàyyal laa plus tard dana leen am nañu problème malgré bokkuñu parti mais da koy wax pour doogu dikk dañoo soxla ci yow 10 millions pour taxal bi baax mais Babacar du ko bañal bu ko defee Thierno du ko bañ bu ko defee kenn du ko bañ parce que ñoom ñëpp kees la ñu lu dul kees ku bëgg kees ñu bëgg kon moom am nañ part responsabilité ci ñun ñu nit am nañu loo xamante ne war nañu ko xeexaar ñu war nañu ko def dañoo waxu parce que xam nañu li bëgg xam nañu li gën ci dëkk bi gënuñu koo xam kon waruñu koo xaar ci moom kese lépp lu ko war war nañu ñi nga xamante ni yàlla may nañu peut-être

Mor Talla Fall mais nekk na Maodo Malick monsieur le maire nekk fi et puis combien de jours je travaille avec Armand et Aliou Ndiaye Ousseynou Mbaye et cetera et cetera on a formé une ak Armand kenn nekk fa di xaar kii wala kii wala kii ah ba jour bi di pare ñu indi fa benn autorité mais ak autorité na ngeen pare leen ko seen cérémonie bi dina leen ko xaalis paa ko parce que am ko dégg ak kii Edouard bi toog sama wet bu dee man xaw ma nga maa ngi doon mu yëg-yëg def man ma nga xam man lu lan la ñu noo waaye dangeen ko doon di ma dama ne xoolee leen toog foofu xool toog fii yéen ñi ci bu ko fait la force li ngeen am ñun peut-être on a les idées on a les les peu de moyens mais seen i idées ak seen i moyens ci suñu idée xajul suñu moyens damay ngeen te ni ci période jogante tollu ci dara dañoo toll période liggéey dëkk bi xool la fi am on est à on a un aéroport de à qui est à presque à quinze kilomètres aéroport boo xamante ni dangay daw ba egg doo gis kër bu baax doo gis sax kër àll ngay seen pourtant non c'est sa baax pour di jox nit loolu fa nekk ñu tabax ko jëriñoo ko mais loolu ñuy xeex ñoom ñun population bi gën ci mën a jàppale ni ñu leen di jàppale mooy ñu tànkam la ñuy yàq accompagner leen ñoom ci loolu ñuy xeex pour ñu yokk parce que buñ ko daggee ba jox leen ko def ko seen poche soxlawuñu ko buñ ko daggee bu leen ko joxee askan bi lañ ko jox kon ñun am nañu loo xamante ni ñun ñoo leen ko mën a indil ñoom ñu ngi xel bi ñu ngi peut-être nguur ñu nekk ko mais am na loo xamante ni ni ko Arma Arma ah Edouard waxee buñ fa tollee dootu mën a egg fenn bu ñun bu ñu jëlee moom ci ma dara sinon balaa ñu ko wax dañuy def ay morom lañ ko def yéen a yóbbu suñu teg ko te boobaa ñoo koy def mooy sàkku ci yéen ngeen dajaloo ñu nekk benn. benn bi rek mënuñu ko def ba lekk ba te duñu mën a liggéey liggéey bi moom boobu ñoom il faut ñu tàllal loxo état bi nga xam ne ñoom boobu appareil état appartient à tous les Sénégalais Thiès Sénégal la bokk kenn mënu ko fee dindi te boo liggéey capital mënoo dem benn dëkk jaaroo Thiès kon yaakaar naa ne li ñu am te mu nekk appareil boobu am la fa nekk di bokk ci bokk ci yaakaar dañ cee war a nañ leen tàllal suñu loxo jëloo ko suñu bopp liggéey te bàyyi xëccoo bi yiiroo bi ak jawante boo xamante ni excès bi Sénégal suñu problème mooy sànq suñu jomante sànq suñu jomante ci ki ngay jomanteel yàlla jox na ko li koy jox ko pare balaa ma koo ñàkkat juróomi at yi jot juróomi at yi jot ko nan liggéey moom bu a def yow mu def ko man loolu lay woote loolu laa bëgg ngeen dugal seen loxo te xam ne en moom il est Sénégal qu'on le veut ou pas c'est le Sénégal Aliou Sow c'est le PDS nga nekk réew nga nekk euh, PS nga nekk PDS mënuloo ko daal fal nañ ko ba pare mënuloo ci loolu lay woo population bi ci loolu laay ànd ak population bi ci laa woo ñii a xamante ne tamit ils ont leurs idées ak leurs moyens ñi nga xamante ne tamit ñu ngi dëkk ci koñ man damay dox damay tukki damay def fu nekk toog naa Dakar ku dem Dakar café de boo ko doxee la majeure partie c'est des kids quoi dama leen waxtaan ak ñoom man kees six mois par six mois la fay et c'est des centaines ay ils sont des centaines de millions pour jàppale kees sax xamuñ fu ñuy jaar te li ñuy wax nit ñi nekk dak ñi fréquente Dakar ñu xamuñ loolu damay waxtaan ak ñoom pare nañu pour jàppale leen et l'exemple est là ba suñu jógee bi en pleine réunion deux séances de réunion lañ fi def man ma yëkkati un million jox leen am mu yaa yëkkati un million may leen Matar na yëkkati deux millions jox leen te ñoo gën a tuuti la ñuy dëkk dëkk ñoo gën a tuuti la ñuy mais xeebuñu leen te xeebuñu li ngeen toll waaye nag suñu borom dimbali nañu ba yéen ñii ñi mi leen taxawal ah xam naa ne kenn du leen laal bu dee dëggal njëriñ dana liggéey ci dëkk ànd suude tendre la main à nos autorités qui sont ici à ah, tout que liggéey boo ko commencé bu commencé dëkk am na fi ne ñooy njiit yi nañu waxtaan ak ñoom tàllal leen loxo ñu jàppale ñu buñ paree de xam ne ñoo ko fi mu jox ñu loolu laa xam ni moo jiite mouvement république des valeurs ñu naan ko RV ma ñëw ci turam ànd ak sama naatangoo Abdou Kassé teewal ko fii ci bi nga xam ni Habib Kane moo ko ci invité euh, moom moo waroon a teew sax moom la président Thierno Alassane Sall mais yàlla dafa dogal mu nekk ci ay yitte mais su sañoon moom mooy ñëw teewal boppam di nuyu Habib bu baax a baax di rafetlu jataay bi nga xam ni woote na ko tey fii mu nekk loo xam ni képp kuy doomu Cees war nga ko rafetlu parce que suñ nee développement wu Thiès yaakaar naa ni doomu Thiès yépp ñoo ko bokk bu nekk am nga ci taxawaay bu nekk am nga ci wàll parce que Thiès su développé tey ay doomam ñoo ko développé ñoo joxante loxo pour que Thiès mën a développé donc loolu xale yi ci lañ bokk muy les jeunes mag ñi lañu bokk ci lañ bokk jigéen ñi surtout ci lañ bokk

di ci profito rek di wax que ni ñi nga xam ni aussi ñoo jiite maire yi comme monsieur le maire mi ngi fi ñu yombalal population bu Thiès nga xam ni xëccoo yi nga xam ni déggoon nañ ko fii ci fan yi ñu weesu ñu waxtaan seen biir xool nu ñuy régler problème boobu ñu problème mu budget bi fi amoon waxuñu nag kii la wala kële la mais dañuy wax rek lépp luñ ciy def wala luñ ci wax nañu xool intérêt Thiès waaye parce que blocage su amee rek Thiès mooy perte population wu Thiès waa bi ñoo ci sonn donc euh, dama doon profité ci jataay bi euh, pour jàllale waale message boobu di leen jotali nag nuyoo le président Thierno Alassane Sall mi nga xam ni kenn nattablewul bëgg Thièsam ak taxawaay bi nga xam ni am na ko ci biir Thiès ak calculam ak mébétam guddi muy bëccëg mooy lu jëmale Thiès kanam donc maa ngi leen di sant ci kàddu yooyu laay daanelee